ahousubillahi mina seytaani rajim yi bisimilahi rahmaanirahim yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ginnaaw benn sant yàlla julli ci yonent am seydina Muhammad salallaahu alayhi wa sallam waaye mën a nekk ñoo leen ziar di leen ñaanal jàmm gudd fan wér di ko sàkk ci yéen rawatina yéen ñoo ci daaru salaam si faaw daaru salaam si faaw dana seet bu la seetalee wax la sarax wala wax sa càngaay foo ma dem defe ci ko lii nag secret la bu dek ci suurtu nasri ñu koy wax isa jaar muy ubbeekaay rek bu yéeme la vidéo bi tamit ko ko ko partagé ndax jëriñ la rek da ngay bind bismillahi rahmaani rahim isa jaa nasrullahi wal fathu wa ra'ayta an-naasa yadxuluuna fi diinillahi afwaajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba juróomi yoon nga koy bind juróomi yoon nga koy bind lañ koy bind bisu àjjuma des ko bind beneen bis bis bisu àjjuma baaxal ko leer des ko bind beneen bis bu bisu àjjuma bisu àjjuma rek lañ koy bind waaye yaa ngi bind saar yi gis nga ko yomb na ñetti aaya la yaa ngi bind isaa jaa nasrullahi bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bismillaahi rahmaani rahiim isaa jaa an nasrullaahi wal fathu wa raayta naasa yadxuluuna fii diinillaahi afwaajan fasabbih bihamdi rabbika wastaxfir innahu kaana tawwaaba moom ngay bind juróomi yoon ginnaaw bi ñu ko bindee juróomi yoon pare nag nga daal di xul a'uuzu bi falax benn yoon bindaat xul a'uuzu benn yoon nga boole leen. kon bind nga juróomi isaa jaa nasrullaahi bind xul avancer bi falaxi benn yoon xul avancer bi naas yi benn yoon nga boole leen def ci xorom nag tuuti wutal xorom nga def ci ba nga defee xorom ba pare nag nga daal li koy sangoo benn yoon tamit nga koy sangoo ci bisu àjjuma bi mbokk yi lii ubbikaay bu yéeme la mbokk yi lii yéeme na ñam leen ko ngeen xool ubbikaale bu yéeme da ngay xaar ba bis àjjuma nag lañ ko def bind nga bind isaa jaa nasrullaahi wal fath wa ra'aytan naasa yadxuluuna fii diinillaahi afwaajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu yoon ba ja dolli ko bi falaq benn yoon bi rabbi benn yoon nga def ci ndox wut sa xorom nga def ca nga sangoo ko benn yoon benn cangaay dong lay doon nag ci bis aj boobu boo ko xëyee bind mën ngaa dem ba ngoon wala ba ginnaaw tisbaar nga sangoo ko yi mos leen loolu ngeen xool ubbikaay la bu yéeme lu dox ci wàllu wërsëg la kon ñëw leen ziar leen jégg ñu leen ñaanal jàmm ak salaamaaleykum wa rahmatullah